asalaamaaleykum wa rahmatullah taala barkaatu mbokku sénégalais yi maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di la ñaanal yàlla tey sàkku ci yow ñaan ah di ñaanal sunu kilifa diine yeeg yu aada yi di ñaanal gardien de la constitution ñu ne ko son excellence man ma ne ko your highness lii la yàlla dogal sa màgguwaay ak sa kawewaay sàll ngaar yi tay nak sama video bi dama ñëwaat ci tunkara mu ñak jom mi yow tunkara xana amo liggey tunkara sa auto bi ngay xey suba ba ngon jot tunkara xana aawo yi yow bu ko ay waaye tunkara ya ñak jom waye ya maa ngi la koy watal yow tunkara barki alcorane di nga ñam ni musinu senegal continuel li nga nekké ni ci social media bi di saaga président république di saaga fës lady bi nga xam ni moo gën sa ndey gën sa baay gën koo bokkal ci àddina di saaga doomu aadama yi yàlla baaxal yëpp tunkara nga ni doo bàyyi te yow tunkara li ma jaaxal New York gépp xam ko yow caga nga takk awandaw caga la joxal leen ma ko sama video bi na bir awa ndaw burkilin la commencé ca sama mbokk haalpulaar yi ku tedde jox moromam mu ñew arlem sase tungkara, tunkara sa jabar yang Musulnyar ko takke ci restaurant mu ñaari New York ñak ak pular. yow yaay ñettel bi dé dee caga continental nga Tungkara tunkara danga fatte ba nga nekké nu mu sa jabar won New York weer yang fa def adi sa jabar a ngi doon cagatu New York ñu ma ñu ko xamama ko wax cagatu ba amatul lu muy def meuble ya nga yoroon te mu nekk storage sa jabar di ko jaay parce que kenn bëggatu ko New York te nañ ko ba mu son tunkara nga judd ci caga nàmp ci caga yaru ci caga nee nañ ma sa ndey taxawaalu la doon def tunkara yaa bon Tunkara Sénégal gépp jéppi nañ la képp kuy doomu Sénégal la jéppi na la Tunkara Sonko ragal na la Idrissa ragal na la piir ragal na la képp kuy politique ragal na la Tunkara kaay ma wax la lenn néga is not working li ngay def woogul amul benn parti politique bu bëgg kuy wax lu ñaaw lii di ko génnee ci gémmiñam gi nee nga danga bañ Macky Sall ñun ñoo la gën a bañ ndax yow tekki woo dara tunkara danga jaxle ba xamato tunkara fo jëm nga tit tunkara danga fàtte audio bimala bimala la bima la enregistrer li nga wax li may wax Macky Sall sama waxu chay chay rek lay wax waye deful dara gis na ni mi ngi liggéey tunkara yow sa audio bobu dafa wër adina tunkara dalal xam nga loola nit ñi di sétané tunkara saga yi ngay saga lañu jommi gis nga ni lañ fi defon waja di la seetaan nga am ay view yu bari mais tunkara bis buñ la jàppee nga woy sénégalais te tunkara ki ngay saga ñi ngay saga tunkara tunkara ñi ngay saga dañu upp sa bay doole upp sa nday doole tunkara ndegam Karim wad lañu duggal nu musin gi mu taw a tunkara waxantuma la ak yow tunkara nga xamul ni yaw do citizen bu la Sénégal soxla bo citizen sax Sénégal soxla la gouvernement bi dañ la dañ la dañ la koy jox ci nu mu gën a gaawee dangeen a nekk Amérique na xamuleen loo bi sénégalais yu baa doole bi nga xamant tunkara bu ma rusuloon ñi may seetaan katar piyaar laay jaar rek jàll xaj na fa de xaj na ah? bu ma ñi may seetaan tunkara katar piyaar laay jël rek xam nga fi may jaar xaj na tunkara yaay doomaraam tunkara sanday bu liggéeyoon doo yend ci oto yi ak amari Amérique liñ ne time is money ñépp di dem di liggéeyi tunkara sonko yónniwu la idi yónniwu la benn nag candidat yónniwu la tunkara jommi nga des nga ni doo bàyyi tunkara abilaay waaye joxal leen ma awandaw sama vidéo bi sa partager leen ma li ba awandaw jot ko awandaw yaay jigéen ju bon awa ya bon nga ni danga muru sa jëkkër doomu kharam bi nek fi di saga jigen ni di dugg ci sayu jamburi yow awa ndaw nga di ko deglu yow lo meunal sa mo wax la la xale ba bayam mbeur ma romb ko papa xana ki mo ñep papa ji ne ko dedet mu ko kuko man mën ko mu ko langgai ko man jigéen gis ci adina lan ngay xalat awandaw awa ndaw ciagate gi nga nekké won xana moo tax moom nga mer baye sa jëkër ji ni di xass ñi nga xamantene ni ñoko gën man bes bu ne nga wowe ma ciaga man benn jëkër la am am ci ñetti doom masàllaa ñu jongama ma lool biram gayi bass musa yesi awa jaagne sama doom yoyu jibi jo fay jur leen kenn wérante wuko ciaga nak sa jabar joju moko nekké mom mi jur doom yu bokul tunkara nga am ñaari goor yu la jitu ci sa jabar joju tëddee ko ba mu tas mu mujjee muuru nga nekk kaso mu muuru te teewul ci muuru boobu waa New York ñi ngi ko doon paasante Tunkara foofu Harlem la nit ñi dañuy wax ak sa équipe bu ndaw jigéen ña nekk ci sa équipe bi yépp ay cagalañu xam naa leen te màgget war a jënd bekkin sooda ak limon bii maa leen ko baaxee ma ni day dindi ras-rasu kanam yéen waa New York ñu bon ñi ànd ak Tunkara maa ngi ñëw nag Amérique ci kàttanu yàlla tunkara maa yow dinañ ko digaale di nga xam ni maa la gën a gudd lonk barki yonent bi te maa ngi wax procureur boo leen jàppee Assane jàpp waa ja newoon Touba di saaga sëriñ bi jàpp leen nag tunkara mii nag senegaal nag tunkara li muy wax nag ñaaw na tunkara li muy wax ñaaw na ci fës lay di bi Marème Faye munoo koo yàq barke yonent bi li mu des tunkara sa nday munu ko sa baay munu ko say mag munuñu ko anyway sa nday gërëmu la yóbbu sa yaay yóbbante na ni oto yi ngay kaas xanaa moom mayoo ko ci ndax rapide lay jël tunkara sa baay yorul dara sa baay bu yoroon doo sàcc tunkara sa baay bu yoroon doo nekk New York toog ci oto yi 24 hours di wax time is money niga yow ak sa ñooñu nga àndal with your little gang tunkar reglel tunkar togal nga xol ni jigen nga jur ci jigen nga genn ndaw genn fu farox ndaw genn fu tilim tunkar bir bi nga tëdd bir bu xasaw la bir bu bon nga genn fu bon ndax bo genné fu bon ci ngay tok di saga yaayu jamburi, tunkar gor nga bu fekke ni li nga yor legi dañ la dañ la tap ci bir kasso Amérique teddé la ba nga nek gor jigen nga nek baye sexuel bayil awa daw mu dem muy tiaga ngay gor jigen man ngeena and tunkara ya bon ko bokal jepina la kay ma wax la nak du ñew nga senegal daw sama nijaay khadim gey italy genné saga nday yu ñaaw yi nga don saga president ci nga xey daw tunkara ya bon tunkara ken dula may dara Senegal gep jëppi la xale gor yi nenañu ko bon nga nenañ nga ñewat Tounkara defoo fi lu dul quatre semaines xaw ma trois semaine nga daw yow yàlla na la àqu mareem fay jàpp ak àqu Macky sàll gis nga ni nga ne boo ni nga ni nga ni nga bañee Macky Sall noonu nga nga gis sa butit yi moo la gënal gis Macky sàll ñun Tounkara ñu gis la ci social media bi gis suñu butit yi sax moo nu ko gënal Tounkara nee nga Macky Sall danga ko gént mu dee Tounkara yow doo dee duñ la ñaanal nga dee xam nga nan ngay def ñëw fii nu siin ñam li sa nawle ba ñamoon tunkara yaa bon tunkara danga bona bona bona bona bon ba xam ni danga bon tunkara tekki woo dara demal nga wuti liggéeyi ay tunkara biir bi nga génn tunkara biir bu bon la tunkara sa yaaya bon sa yaay bu baaxoon nii nga nekkee nii doo ko def li sa yaay def sa baay moo tàng sa xol bi nii ba doo mën a wàcc kaar yi ngay toog di saaga doomu aadama yi ñàkk jom tegal tegaat ci Viviane na ma baal fii kenn du la fi baal ah xam nga ni dafa am jëkkër tunkara te nga yor jabar yor ay doom yi jigéen waaye nag wax nga ko danga bañ Macky Sall yàlla def na ko muy président tous les sénégalais sa ndey du ko dindi sa baay du ko dindi keneen ku mel ni yow sa équipe bu ndaw bi nekk New York te xasaw te ñu ras duñu ko dindi tunkara yaa bon neel sa équipe bi maa ngi ñëw yéen ñépp di ngeen baaw dama leen di wàcce kenn par kenn barki yonti yàlla Muhammad su ma yegsi di leen wàccee salut